tay dañ doon waxtaanee eh, walum guide de performance bi nga xamné né mom lañ collectivité territoriale pour ñu atteindre ODD ODD moy manam objectifs de développement durable surtout nak bu numéro 16 bi mi nga xamné né mo ngi wax ci walum eh, efficacité ci walum bonne gouvernance ak ci wàllu justice ak équité mu nekk eh, lu am am solo lu tax mu am solo nak ñun collectivité territoriale dañ ñoo tax ci bop bokk momel yoyu nonu pour ñu produire des résultats ñoom nag tey pare nañ pour jàppale ñu pour ñu am ay résultat résultats yooyu nag pour ñu am ko dañu am ay auti technique waaye tamit war nañu war a jàppale ci wàllum renforcement comme nu ko madame euh, secrétaire générale waxee ci jàppale ci wàllum finance financement man nag sama ak sama intervention foofu laa gën a teg ne jàppale pour ñu am outil technique baax na pour yokk suñu xam-xam baax na waaye nañu gën a dimbale doole ñu am ay ndax baa ngaa ne naam nekk fi performance résultat pour nga am ko dang il faut nga am ay moyens donc ma ngi ñaan nguur gi ak ministre ak autorités yi ak partenaires ñu gëna a jàppale collectivités territoriales pour ci politique de territorialisation des ODD bi nga xamné né mom moom la communauté internationale wi daal di diglé mu nekk lu am am solo rek nax nak finalité développement population yi la population nak bokk moomeel yi nga xamné né mom lañu jité ñom ñoo leen gëna jégé wa waaw kon nag euh, guide bi euh, defar bi jël na temps. pour pourquoi parce que dañoo bëggoon ñi ci war a bokk ñëpp bokk ci waaw soo bëggee ñi ci war a bokk ñëpp bokk ci nag dafay laaj nga am consertation bu yaatu ak ñoom ndax ñi liggéey ci walu décentralisation muy collectivité territoriale yi euh, maire yi président au département yi le ministère bi nga xam ne moom la ñuy defaral guide bi mais également les partenaires ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci mbir mi bon partenaires yooyu mun naa cee citer Union européenne mun naa cee citer coopération luxembourgeoise ñi nga xam ne ñoo jàppale mbir mi donc jàppale nañu ba ñu taxawal guide bi daal di koy defar mais biñ ko defaree yemuñ ci lool dañ ko daal di dugal ci ay communes ngir tester ko pour xool li ñu defar ndax baax na ndax baaxul lan lañ ci war a euh, euh, euh, jekkal bi ñu defee loolu nag commune ni ñuy choisir mooy commune wu Dalifort Foirail commune wu Gueule Tapée Fass ak commune Pikine Est ci ñooñu lañ ko testé bi ñu paree nag ñooñu bi ñu joxee seen résultat ci la ñu defaraat guide bi daal di koy jekkal yi ba mun ko partager tey liñ ciy séntu nag <clears throat> ñaari mbir la bi si jëkk mooy naka la ñuy fexe ba commune yi nga xam ne euh, ñoo nekk Sénégal daal di koy euh, approprié wu maanaam mu doon seen jumtukaay puisque liñ ci bëgg mooy commune yi que ce soit des communes performantes ndax tey su dee da nga war a jiite c'est important que li ngay doxal que population yi gis seen bopp donc performance boobu ñu ngi ko ciy wut mais lu mbir bi mooy su dee da ngaa wax performance c'est important que lépp lu jëm ci ay kom-kom bi nga xam ne moom na doxal performance c'est important nga am ko ndax soo amul ressource c'est difficile pour nga ah, ci fànn boobu nag ñaari euh, levier laa ci gis bi si njëkk mooy li ñuy wax les ressources de transfert maanaam ressources yi nga xam ne mooy jóge ci état bi jëm ci collectivités yi war nañ ko xoolaat euh, mais beneen mooy les ressources local yi nga a mo nek ci territoire yi maanaam lu jëm ci fiscalité bon daa dégg président au département di di koy wax c'est important que toute la réflexion sur les ressources euh, locales la fiscalité locale les jëm ci collectivité ci département ñu dal ci réfléchir mais d'une manière générale même yaakaar naa ne euh, c'est important que soit menée benn réflexion benn gëstu bu yaatu ci